الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبس مقام محمود الذي أتى
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk ci yàlla ñun ñëpp war ñoo ànd noo war a ànd laaj lii di ay xew-xew yuy xew ci réew mi tey ñun ñëpp ñoo war a ànd laaj kan mooy responsable bi réew moo xam ne tey egg nañ ci kenn du xëy suba lu dul dégg ku nu sàcc walla ku nu violé walla ku ñu rey tey kenn du toog ñaari fan ñetti fan lu dul dégg nga ku ñu rey ci sa fenêtre u nekk suñ demee ba egg fii ñun ñëpp war nañu laaj kan mooy responsable tey réew mi fi mu yegg ñan ñooy responsable yi loolu tamit war ñu juralaat est-ce que mbokk yi waruñu taxaw waruñoo dëpp ci gis réew mi fii mu jëm ci tey ay violence koo waxal mu génne paaka koo waxal mu tëj butel koo waxal mu saaga jikko yu ñaaw ay xale yu tuuti kenn amu ci 15 ans dem sax ba ay 13 ans dem ba ay 5 ans sànq laay déglu rajo bi benn waay ne am na xale bu am 5 ans bu mu jàpp ci biir néegam muy sàcc 5 ans kon fan la réew mi jëm waaye loolu lépp mooy ñan ñooy responsable yi waaye réew moo xam ne nag aussi jikko yi dañoo yàqu ba ñuy organiser sabaru caga dajale cagaay Gambie cagaay Mali cagaay Sénégal cagaay Guinée di organiser sabar grand théâtre réew moom moo bu fay violence amee lu jaadu la ah réew moo xam ne école yi sàngara dafa tasaaro mbuus saafran réew moo xam ne yamba bi drogue bi kon dëgg-dëgg loolu bu yeggee fii bu kenn yedd sa bopp ndax loolu ñun ñëpp nu ngi koy gis waaye wax ji mooy tey manil mas'ul an nisa allati yahbabna al aswaq laylan wa naharan bi als bi libas aw bi alsiba tuhiju shahawat wa tulifu nazarat tey kan mooy responsable ci sunu jigéen ñii ñu gis Aïcha Khadija Zeynab Fatima ci col gu bon amatul benn xale bu jigéen buy woddu wala mu sol yére bu baax ci biir réew mi tambambalu ci mbedd yi marché yi ci biir kër yi ci biir dëkk bi kan mooy ñan ñooy responsable ci loolu manil mas'ul ani shabab attaish allati la amala la illa nazru fi nisa wa mughazatihinna wa muakasatihinna kan mooy responsable tey ci xale yi nga xam ne ay xale yu góor lañ yu gëlëm xamatuñu fu ñuy teg seen tànk kenn liggéeyul njàng mu baaxul éducation zéro kan mooy responsable ci xale yu góor yi nga xam ne tey dañoo gëlëm xamuñu fu ñuy teg seen tànk ci ay jikko yu yàqu ñan ñooy responsable ci loolu manil mas'ul an idxaali alqanawat allati tahdumu al axlaq wa tabussu lfasad kan mooy responsable ci télévision yi ñu gis tey nga xam ne day màbb jikko di yàq dëkk di yàq góor di yàq jigéen yàq jeunesse bi ñan ñoo nekk ci ginnaaw télé yeeg information bi rajo yi animateurs yi journalistes yi kan mooy responsable ci loolu manil mas'ul ayyuhal ahbab kan mooy responsable ci jikko yu yàqu yi ñan ñooy responsable ci mbon gi ñuy tasaare ñan ñooy responsable ci njàng mi ñu yàq ñan ñooy responsable te ca tabarruj bii tey am tambambalu bi am libertinage bi nga xam ne moo am ci góor yi xale yu jigéen yeeg dépp kan mooy responsable loolu ixwatal iman manil mas'ul kan mooy responsable tey ci baar yi ñu ubbi ci boîte de nuit yi di tasaaroo ci tefesu géej ci biir géej ci auberge yi ñu tasaare ci biir réew mi nga xam ne ku mu neex defal sa immeuble ubbi ko auberge kan mooy responsable ci loolu kan mooy responsable ci mbaar yi ñu def ci tefesu géej guddeeg bëccëg góor ak jigéen di fa jaxasoo espace yi ñuy defar ay espace vert nga xam ne ay banc public góor ñi jigéen ñi di fa daje yamba beeg drogue bi di takkarnaase kan mooy responsable ci loolu ana kilifa diine yi ana borom xam-xam yi ana ñi kersa yëkkati ana ñi jog tax a jog ana ñi jiite ngor ana ñu xanaa Sénégal amuñu ay kilifa xanaa ñun suñuy kilifa diine yëguñu lan moo xew ci réew mi manil masul kan mooy responsable ci mbon gi ñu tasaare génne alal pour tasaare mbon pour defar ay barab yu bon kan mooy responsable ci loolu kan mooy responsable mbokk yi ci diine ji ñu sànni ci ginnaaw nga xam ne tey kenn du wax ba wax diine soo tuddee diine sax ñu am bët buñ lay gisee wala nun lay xoolee ñan ñooy responsable ci loolu képp ku jóg di woote ci mbaax takkal nañ la benn ticket wala takkal nañ la benn wala joxoñ nañ la baaraam wala tuddee nañ la ay tur ñan ñooy responsable ci loolu ixwatal iman manil masul tey ñan ñooy responsable ci yéeféer yi ñuy roy moddu kéeféer gii ñu dugal ci biir Sénégal di woote quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñun ñëpp ñuy woote ne ay jullit lañ vendredi ñu gàddu suñuy sijaada ak suñuy kurus ak suñuy basang utali jumaa yi ndax ci sunu diine ci jumaa rek la yem ndax sunu diine ci jàkka rek la yem ndax sunu diine ci julli rek la yem koo wax mu ne julli laa billahi julli laa waat waaye boo gisee ay jëfam ak comportement am ak melokaanam ay waxam wala nga fekk ko ci biir njabootam sa yaram daw waaye ñan ñooy responsable ci loolu ay laaj la yoo xam ne ku nekk war na ko laaj boppam manil masul an intishaari haazil aadaat kan mooy responsable tey ci aada yu ñaaw yu bon yi tasaaroo bokkaale yàlla gudul jeex njabar gudul jeex guddeeg bëccëg ay bidaa yoo xam ne ma anzalallahu biha min sultaan guddeeg bëccëg ñoo ngi tasaare ay bidaa di ko yëkkati kan mooy responsable ci loolu mbon gi tasaaroo comportement yi yàqu jikko yi yàqu réew mi yàqu rey guddeeg bëccëg deret ji wala ngaan kenn amatul sécurité ñëpp tiit kan mooy responsable ci loolu roy ay yahud roy ay franc-maçon ay naaféq ñoo xamante ne mu leer xam nañ ñu buñ leen toppee fuñ ñu jëmee ndax yàlla waxoon nañu ko ci alquran wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istataau yéen jullit na ngeen yëg ne yahud ak nasaraan du ñu deñ di leen xeex lenn dong mooy tax ñu tekki seeni ngemb bàyyi leen xeex mooy ngeen bàyyi lislaam ngeen nekk ay yéeféer comme ñoom waddu law tudhinu fa yudhinuun bëgg nañ ngeen nooyal ngeen mel ñoom nunu mel fa takunu sawa ngeen yem loolu yàlla kañ lañ ko waxoon tey umma bi tey xeet wi tey ñii di woote wu ay jullit nga xam ne ak njullit gi tey ci làmm ñi rek la yem war nañu laaj ñan mooy responsable ñan ñoo ñu indi fii tey loolu war nañ koo laaj suñu bopp ndax dinañ ci am tontu ixwat al iman laqad intasharat al jaraim al axlaqiya mislu zina wal liwaat wa intasharat zahiratu tabarruj tey ku waxal yàlla gis mbon ni mu tasaaroo ci biir réew mi guddi ak bëccëg kenn amatul kersa zahir ak baatin mbon tasaaroo biir ak biti bu ñu amee fit bàyyi dajale ay caga di leen organiser loo ay sabar ñëpp toog di gis loolu amul kenn ku koy weddi wala ku koy dingat ci biir Sénégal kon xam nañ ne yegg nañ nag fu ñu waroon yegg ixwatal iman jikko yu yàqu yi njaaloo gu tasaaroo ak ngóor jigéen mbon gu dul jeex yëre yu bon jaxasoo góor ak jigéen fu nekk fu nekk ci biir réew mi loolu ñun ñëpp ñoo war a laaj suñu bopp ñan ñoo ñu yeggal fii ak ñan ñooy responsable tey ñu yegg fii ixwatal iman mbon goo xam ne fépp la yemale mag ak ndaw góor ak jigéen ci biir ak ci biti amul néegu tabax étage baraak sakket néegam ñax boo dul booy ubbi lu dul da nga fekk mbon ngi egsi na foofu tey amul fenn ci biir ak ci biti loolu yàlla doon wax zahara al fasad fi l barri wal bahr bima kasabat aydi nnas géej gi fees na mbon jéeri ji fees na bon lépp nag ñan ñoo ko def mu ne bima kasabat aydi nnas loxoy doomu aadama yi la yàlla binduñu ci kaw suuf wàcce mbon gi sunu kaw déedéet bal mbon gi ñun ñoo ko sàkkul sunu bopp ñun ñoo ko nangu ba mu sax tasaaroo ci biir réew mi biir ak biti laaj bi mooy ñan ñoo ñu yeggaloo fii ak lan moo ñu yeggaloo fii ak ñan ñooy responsable ixwatal iman ñaata bàyyi kam min aba jalabu ila buyutihim alqanawat almustafira allati taddu ila al ibaha wal fuhsh ñaata baay tey ñaata kilifa ñaata borom kër ñoo d'accord télévision bu araam bu bon bii tey ci biir kër yi nga xam ne mbon dong lay tasaare ci wax ak jëf image ak lépp luy génn tey ci télévision bi lu bon la munoo cee wax sax tuuti nga ni lii lu baax la bal jullu programme bi yëpp luy détruire ab dund jullit la waaye ñan ñoo ko indi ci biir kër yi ndax télévision yi dañoo wàcc jóge kaw asamaan ne cëppeelu ci biir néeg yi déedéet koo fi gis lu muy tiitaroo écran plat nangam nangamu mètre nangam am naa écran boo xam ne dafa fees miir ba miir loolu la ñuy tiitaroo lan nga ciy seetaan ni ñuy waree kaaba gi lan nga ciy seetaan nu ñuy jàppee sifatu salaatu nabi nu yonent bi doon jàppee lan nga ci seetaan si ni yonent bi doon jullee loolu nga ci seetaan kayfa hajjan nabi naka la yonent bi doon ajee loolu nga ci seetaan déedéet loo ci seetaan wiiri wiiri loo ci seetaan film porno loo ci seetaan film action film violence nangam ak nangam loolu dong te ñun ñëpp moom la ñuy tiitaroo waaye manil mas'ul an haza kan mooy responsable ci loolu ixwatal iman ay programme yoo xam ne njaaloo lay tasaaroo lay tasaare mbon lay tasaare bàyyiwul benn néeg bàyyiwul benn kër ay xale yoo xamante ne ba ñu juddoo ba bis leen tuddee la ñàkk teggin nga commencé waaye manil masul ayuha al ahbab an hada kan mooy responsable ci loolu ay laaj la yu ñuy laaj dañoo xamagul ñan lañ koy wax ñan ñoo ñu yóbbu fii ay way jur yoo xam ne aba ay baay yoo xamante ne indi luñu seeni doom yar waaye lan lañ leen indil mbon lan lañ leen indil yàqute lañ leen lan leen indil roy yahud ak nasaraan kenn ku nekk ci ñun tey balaa ngay kontaan nga ne sama doom ji ab tubaab la sama doom ji tubaab la ñun ñëpp loolu la ñu bëgg ay doomi tubaab moo tax gis ngeen lu nu yàlla may waaw sëñ ma sama doom ji tey tubaab la au lieu nga ne sama doom jullit la waaye sama doom ab tubaab la yëkkati yahud yëkkati nasaraan daaneel diine Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey ku fi roy diine ku fi jéem a toppandoo colu lislaam ku jéem a roy yonent yàlla Muhammad bu dee jigéen la bu royee Khadija wala Fatima wala Umu Kalsum wala Zaynab musiba daa di koy dal waaw ñu tuddee ko ay tur looy mel ne linja noir nii loo mel ne nangam nii looy nangam nii xanaa xamoo nangam bi fan lañ jëm ci loolu te ñu nekk ay jullit di woote woo lislaam boo waxee ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñun ñëpp ay jullit lañ réew mi diw fii la tëdd diw fii la fekk baax diw diw diw diw di la lemal ay kilifa diine yoo xam ne yàlla wax na ci alquran bu yàgg tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusalunna amma kaanu yaamaluun yàlla nee na ñooñu ngeen di tiitaroo dem nañu passé nañ munu leen a wax ba ñooñu seen mbaax fekk si leen fii tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat yàlla nee na ñooñu lañ defoon passé na seen génération ñoom la yàlla di laaj yéen ñii walakum ma kasabtum yéen lu ngeen def yéen la engagé yéen lañ koy laaj waaye tey ndeysaan réew mi toog rek di mbubboowoo ay tur waaye kenn du jaamu yàlla te kat mag ñu baax ñooñu ñuy tiitaroo fa ñu jaaroon ñun dañ fa lànk ne duñ fa jaar ah ba pare di leen tiitaroo nag ñooñu lañ doon def ci jaamu yàlla ak lañ doon def ci ngor ak njom ak daan ko bañ gars yi sax dañ koy woy ndeysaan naan maalaw gisul raay bi ñu ne ba ñu reyee Lat Joor dañoo jàpp fas bi ne fal force parce que Lat Joor li mu doon xeex mooy raay bi du fi jaar ñu jàpp ko néewal ko doole rey ko jàpp fas bi ne ko da ngay gis raay bi ñu ne fas bi dafa xaru ne gisul raay bi ñun fas ba la mu bañoon sax ñun nangu nañ ko aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله متى نتخلى عن المجاولات ومدعوى الثقة لنبدأ ببينة الوعي بين أبنائنا وبناتنا ومصارحتهم بفساد هذه السلوكيات وخطأ هذه التصرفات mbokki jullit yi kañ la ñuy dañ kañ la ñuy toog kañ la ñuy xalaat kañ la ñuy yëg ne dañoo war a taxaw temm ci conscientiser sunu njaboot ginnaaw ba ñu nekkee jullit ñu war a yëg ne dañoo jaar dañoo war a jaar ci siraatal mustaqim est-ce que jotul ñu yëg ne dañoo war a am conscience conscientiser suñu bopp waaye conscientiser conscientiser suñu njaboot waaye arab yi dañuy wax ne faaqidu shay laa yuutihi ku amul doo maye ku amul doo maye ku yaruwul mënoo yare balaa baay di conscientiser doom ci mu nekk jullit day fekk baay am conscience balaa yaay di conscientiser doom day fekk yaay am conscience xale bi dafa ànd ak papaam ci tefesu géej gi papa jaa ngi wax tubéy ji bañ vague géej gi tooyal tànk yi vague yaa ngi dóor seen tànk yi ñoom ñaar papa jaa ngi jàpp ci loxo xale bi ba mu dëgër ne ko doom xoolal fooy teg sa tànk xoolal fi ngay teg sa tànk yow doom doom ji daal di sigg xool baay ji ne ko bàyyi foo teg sa tànk foofu lay teg sama tànk bàyyi foo teg sa tànk foofu lay teg sama tànk loolu nag du waxu tefes loolu du waxu géej guy dóor ay vagues yu dóor ci tànk loolu mooy baay ji doom jaa ngi naan ko bàyyi jàllal rek dem ni nga mel rek noonu laay mel tey nag ndeysaan suñu njaboot problème bu gën a rëy bu ñu am mooy amuñu ku ñuy roy tey da ngay am doom yaa ko jur yaa ak moom ci biir kër gi kan lay roy Messi kan lay roy Balla Gaye kan lay roy tuddal mbër yi tuddal làmbkat yi tuddal yahud yi tuddal nasaraan yi génn leen bu ñu tasee julli jumaa taxaw leen ci kaw tali bi ngeen xool ñaata nit ñoo julli si jumaa waaye seen bopp yi ñu ngi ko def dabala bopp yahud ak bopp nasaraan lañ ko toppandoo te ñu ngi julli si jumaa suñu sëlmalee jumaa taxaw leen ci tali bi ngeen xool tubéy yi fan lañ ko yeew nga gis ponkalum jëmm muy ru ko ab silibam nekk ci biti kooku kan lay roy te mu ngi ci biir jumaa nee na day jaamu yàlla ru ko silib bi mu jiital mu ngi génn kooku kan lay roy ndax góorab jullit ab tubéyam dana wadd ndax góorab jullit dana cëkkal boppam def ko bopp seytaan ar rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk ci xutba juma jouru vendredi yonent bi di xutba am ku dugg si jàkka ji bopp baa ngi mel ne sama bopp gaa yi tey nu ñu mel yonent bi dagg xutba bi ne lan moo dal nit ñi ñu bàyyi seen bopp yi mu mel ne bopp seytaan waa ji daa di sëgg ci suuf daa di raam génn sàppe bi daa di dem raxas bopp bi ba mu set peñe ko daa di koy diw peñe sikkim bi daa di yegsi daa di dugg ci jàkka ji yëkkati ko ba ci kaw daa di dóor ñaari rakk yonent bi gis waa ji daan ne man kaana lahu sha'run fal yukrimhu waaye waaye ku amati yéen ku amati ci yéen kawar na ko teral lu tax ngeen bàyyi seen bopp yi muy niroog bopp seytaan dagg xutba jumaa la yonent bi def wax ak borom bopp boobu tey bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwaatoon Sénégal du dagg xutba yi ci biir kër yi lay dugg ndax du tal xutba ci biir kër yi lay dugg tey fan lañ toll ci loolu fan lañ toll ci wax ak sunu njaboot gu góor ak gu jigéen ñu nekk ay jullit ñu yëg ne dañoo war a nekk jullit ci wax ak jëf waaye pas jullit rek ci tur pas jullit ci làmmiñ ndax jotul tey mbokki jullit yi ñu wax ak sunu njaboot ba ñu am waayul islaam yi comprendre l'islam xam ne l'islam aw dundin la du waxu kese kese kese kese du rek tiitaroo ay nit du tiitaroo ay baay du tiitaroo ay kilifa du tiitaroo ay bàmmeel du diw moo tëdd fii diw a nekk fële réew yu ñu mag yi ñoo ñu gën a rëy ñoo ñu ëpp ay kilifa diine te tey réew yooyu bu ngeen xoolee genn wàllu réew yëpp ñu ngi tàkk réew moo xam ne da ngay dem ñu ne la kii tëdd fii yonent yàlla muhammad la doon àndal nga ñëw fii ñu ne la kii moo yoroon dàll yi nga ñëw fii ñu ne la kii moo doon may yonent bi mu naan nga ñëw fii ñu ne la kii mooy abdullah ibnu mas'ud moom la yonent bi waroon mbaam bi daal ne yéegal mu daal di yéeg mu togg ko ci ginnaaw mbaam mi te tey réew yooyu yëpp ñoo ngi tàkk kon ixwatal iman mbokki jullit yi tey aajo woon nañ bu baax a baax ñu dellooñu ca sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ñu delloo ñu ba ñu xam lan moo tax yàlla bindu nu indi ñu ci kaw suuf delloo na tey laaj na tey ñu delloo ñu ci conscience islamique gannaaw ba ñu toppee ci ginnaaw yahudi ay siècle di daw topp ci ginnaaw nasaraan lu nekk ñu làmbatu ko fu nekk ñu dugg fa lu nekk ñu def ko waaye mënaguñoo fexe ba nekk ay jullit kon jot na tey ñu ñëpp ñu delloo ñu laa ilaha illallah muhammad rasulullah delloo na ñu delloo ñu ba ñu xam lan mooy madluul laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñaari baat yooyu tey jot nañu delloo ñu pour ñu jàngal ñu ko ba ñu xam ñaari baat yooyu lan la ñuy tekki au lieu de laa ilaha illallah bii ñu boole ak ay sabar di tëgg guddeeg bëccëg di fecc mi di di dix heures ci bëccëg wala dix heures ci guddi ba 4 heures du matin ab nit di wër di fecc lan lay fecc laa ilaha illallah ndax yonent yàlla muhammad keroog ba mu indee laa ilaha illallah da ko boole woon ak ay sabar ndax da ko boole woon ak ñoom aboubacar ne leen dee leen fecc ñoom ali ak umar ak ousmane ndax loolu la leen waxoon ndax daf leen waxoon ne makka jarta dem julli jaru ko koor jaru ko laa ilaha illallah kese tey loolu la ñu def détruire xeet wi jël njabootu diine gi sànq leen bàyyiloo ndaw yu góor yi julli yàq seeni melokaan ak seeni jikko tey boo gisee ndaw loo xamante ne ndawub jullit la balaa ngay xam ne kii ab jullit la nga ni ko noo tudd mu ne la Muhammad ci li mu sol ci kaw ak ci suuf ci melokaanam ci bopp bi lim ko def sa yaram day daw fan lañ toll ci loolu mbokk jullit yi ndax doy jotut loolu alquran waxoon alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min alxaq waa ji da doon sàcc dugg ci kër gi guddi fekk borom kër gi nuróowul ak nun kooku bu 10 heures jotoon day lal si jaadaam di naafila ma nga tàmbalee baqara di naafila ba 4 heures du matin sàcc bi toj fenêtre bi daal di dugg waa ji ma ngi ko fekk ndeysaan muy jàng alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubuhum an taxsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min al haq sàcc bi daal di yuuxu daal di daanu dee waa ji bi mu sëlmalee mu xool gis ku dee ci biir néegam mu ne waa kii fan la jaar mu xool gis fenêtre bi da koo daj mu ne kon kii da doon sàcc waaye lan moo ko rey ab aaya alquran bu mu dégg yàlla ne jotagul ñi gëm yàlla seen xol yi di jàq di toj ñu dëpp dellu ci yàlla ndax yàlla li mu wàcce ci dëkk alam yaani lillazina amanu ndax jotagul xool leen sàcc boobu lan moo ko rey ab aaya alquran sàcc démb mbokk yi ñoo gën élimaani tey sàcc démb yi ñoo gën élimaanu tey yi fan lañ jëm ci réew mi di woote woo lislaam di mbuboo lislaam guddi ak bëccëg sunu problème bu gë- bu rëy bu ñu njëkk a am mooy jàpp ne lislaam julli kese la bu ñu noddee nga jàpp julli bu vendredi jotee nga gàdd sa kurus dem waaye am maa ni ngay dundee yow yaag sa soxna yaag say doom yaag sa njaboot fi ngay liggéeyee yaag sa alal bi nga am yaag yaag yaag yaag yaag yaag say mbokk loolu sa yoonu islaam nekku ci fan lañ jëm kenn ci ñun du wax man lan moo ma war sama digganteeg sama boroom fan la ñu jëm ci loolu mbokk jullit yi naxtaaju li awlaadina ila an nantami baynahum الرقابة الزاتية ونذكرهم على جوانب الإيمانية التي تبعث في قلوبهم مراقبة الله وخشيته وتعظيمه جبنا تي ginnaaw ñun suñu bopp bu ñu defaree suñu bopp ba pare ñu jéem a defar suñuy mbokk jéem a defar suñuy doom jéem a defar suñu réew ci ñu xam ne dañoo war a am muraqaba suñu digganteeg suñu borom dañoo war a am fuuglu suñu digganteeg suñu borom mbokk yi su fekkente ne tey bu ñu amee ay kilifa diine yu ñuy seet si ñun ñëpp dañuy muur suñu bopp muur suñuy njaboot yu jigéen góor ñoom ñëpp ñu muur leen ne leen kaay leen ngeen ziyaare ji kilifa gi waaw ana yàlla mi bind kilifa yi ana yàlla mi bind kilifa yi lu tax amuñu fuuglu ak yàlla jalla jalaalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yaroon xeet boo xam ne suñ leen nee yàlla rek xeet wi jub Abdullah ibn Umar fekk na sàmmkat ba ca àll ba di ko seetlu ne ko xar yi nga yor lañ bëgg nga jox ñu ci benn ñu lekk mu ne moom ma ko ñu ne ko soo demee nga ne boroom till yi ñoo fàdd xar bi sàmmkat bi ne Abdullah ibn Umar ayna Allah ana yàlla Abdullah ibn Umar tee sikkim bi di yuuxu di bërëngu ci mba montagne yi Makka ak Médine naan qaala raai ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla Omar ibnul Xataab ca jaaykatu soow ba ba yaay xale bu jigéen ba nee xale bu jigéen bi njaral soow mi njaral soow mi njaral soow mi bénéfice bi bëri xale bu jigéen bi ne ko yaay loolu de Omar daf koy tere mu ne ko Omar nekk fi Omar gisunu xale bi ne ko in kaana Omar laa yaraana fa rabbu Omar yaraana soow moomu noonu la baaxee keroog kenn yokk ci ndox yonent bi dafa yaroon ay nit yoo xam ne buñ leen yàlla rek mbir mi daal di jub ñun tey buñ la nee yàlla looy wax waaye yow boo dee yàlla tawal doj ñun tey buñ ñu nee yàlla ndeysaan sunu yaram du daw duñ yëg dara ci diine parce que sunu xol yee yàqu tey li xeet wi njëkk a ñàkk réew mi li ñu njëkk a ñàkk mooy xol yu yàqu looloo tax ngeen gis violence bi bari moo tax ngeen gis deret ji tuur moo tax ngeen gis sàcc gi bari rey nit gi bari koo waxal ñaar ñett mu daw jël paaka wala mu toj butéel jam boppam ba pare jublu jublu si la parce que xol yee yàqu summa qasat qulubuhum min baadi zalika fa hiya kal hijaara aw asaddu qaswa yàlla nee na seen xol yi dafa wow am na ci xol yoo xam ne sax xeer yi ñoo tane xeer yi xeer yi ndax xol yi nu ñu woowee yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko mbokk jullit yi suñu jullee ba pare am nañ fi suñu ñaari mbokk kenn ki day def opération kenn ki dafa am mbirum location ci biir këram nekk jigéen suñu paree julli kenn ku nekk ci ñun lu mu am pour mun ko jàppalee suñu ñaari mbokk yooyu mu fàtte ko ngir yàlla incha allah ñu ngi koy tàllal loxo pour mu bàyyil fi mbokk yi loolu ñoo ngi ñaan yàlla jalla jalaalu wa azza kamaalu réew mi mu delloo ñu ci lislaam allahumma غير حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن الحال ba ca tegu mooy mbokk yi yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di jaale di leen ñaanal ngeen ñaanal sunu mbokk boobu tudd doon Zeynab Fall nekkoon sunu xarit nekkoon sunu rakk nekkoon sunu soppite mu génn àdduna fan yi passé yéen ñëpp ñu ngi leen koy jaale di ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na ko yàlla tàbbal aljanna ak deewam war a nekk ci ñun jàngat ak deewam war a nekk ci ñun lépp leçon xale bu tuuti koo xam ne fanweeri at ak juróom-ñett la dund waaye mu def ci umma bi léeg-léeg nga dégg benn baat ñu naan faqidul umma kii day xeet bee ko ñàkk waaw kooku moom mun nañu wax xeet bee ko ñàkk ndax li mu liggéey ci diina at yu toll nii li mu taxaw ci islaam li mu jàngale li mu yar li mu wàññ kenn xamul nu mu toll ci ay nit yu mu defar ñu mel noonu ñooy génn àdduna ñu mun a taxaw ne kii day wax dëgg yàlla umma bi ñàkk na waaw wax dëgg yàlla keroog bu mu génnee àdduna umma bi ñàkk na ku mel noonu moom mun nañu wax loolu ci moom koo xam ne la mu liggéey ay xalifa islam ñu ngi fi musuñ cee def benn baat musuñ cee taxaw sax ab bant moom mu nekk xale nekk jigéen di liggéey di liggéey ba yàlla moom ko ci waar wi ñépp a ko war a ñaanal yàlla tabaraka wa taala aljanna firdaws yàlla na ko yàlla may allahumma axfir lana ma qaddamna wa ma axarna وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عباد الله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا